na Coulibaly ñu ngi lay bu baax Coulibaly <laughs> maa ngi leen di fay <laughs> léegi moom laa ñoom oh, ma ah. man fu mu ne ni jaabante police du ko mën du ko mën de ñii naan dem naa te ñëw ñii naan damay en tout Sénégal daal neex na Sénégal neex na de waaye Ndar neexoon na de ndax ah, Ndar dafa neex dama bëgg di fekke man bëgg ma ñu may nettali parce que seetlu nga loolu man comme que la dama bëgg di fekkee. dama dama dama gis euh, euh, je pense ta ton post sur Facebook je l'ai même aimé. Mhm. ma gis ngoone toog ca oto ba. ne ca yoonu dara ba xulil ma toog maa ngi naan yàlla na nga ko yàgg tal. amiin yaa bi yàlla na nga ko yàgg tal. ndax fekkee dafa neex de. trop mhm. surtout nag lu baax. maa fekke woon moom boo demee police dina yaa fekke te moo dañ la nettali ah. régie préparé ma leen ma eh, vidéo boobu s'il vous plaît <laughs> maa ngi nuyu waa waa waa waaw maa ngi nuyu waa waa tey moom waa Ndar waa Ndar xoolal nuyoo nuyoo spécial hmm. sama nijaay Dieng moo ñu dalal xam nga teraanga ndaw ndar la fekk baax waaye mu fekk mu baax suñu nijaay ñu ngi koy nuyu bu baax a baax chaque minute duñu woon ndax egsi nañ ñu ngi lay nuyu naan la loo mën a yàlla nga ko mën a waaw mhm. loolu <laughs> euh, ma ne mhm. naan euh, nabu waaye dafa am lu ma metti loo xam faa ma wax ko mm. ndax imaam ba ñu tajoon jàkka ji xam naa reportage bi dana génn mooy en 2016 mm-hmm. waaw dafa am ñaari jàkka yu fa nekkoon bu at daala yu kooku daaneloon yu maasu fay daaneloon du kooku de waaw ñoom maasu fay li ba ma dem nañ fa jënd lañ ko xam naa dina génn ci Sans Limites TV mm-hmm. damaa ñoo xam nga teraanga kenn ko delloo mm-hmm. ma ñëw ànd ak ñoom coom ñu dugg ci jumaa ji li nga sama muuraay bi ni mu jekkee macha allah bu ñu duggee imaam bi jox ma siège ne ma toogal ma ne ko déedéet imaam di jaay ki yàlla nag imaam déedéet bàyyi ma toog si mu ne ma Ngoné Saliou bàyyi dëgër bopp ah. dëgër bopp nga andi Ndakaaru ba fii toogal ci sa kaw <laughs> <laughs> ne ma ana mami Samb ak Nabou ko <laughs> fi dugg donc maa ngi leen di bu baax a baax di waa Mbaaru Sonko ma lañ def ambassadrice foofu ndeysaan macha allah Mbaaru Sonko bi nekk foofu noonu ca Géet Ndar macha allah Ndar foofu ala ma maam foofu moo la dëkkab Moustapha Malick Guèye waaw mhm. alama maam boo waxee Moustapha Maal daa wax Lamine Bakar Waly Koura. macha allah ne Birahim ne Xalil ne Bunaama. waaw ah. foofu waay foofu la foofee. Ah, Kër Wasoor Adja Fasoor. macha allah euh, Baye Thiam tam moom mooy euh, station communication Pastef bi nekk foofu yombal nañu liggéey bi bu baax a baax. waaye li gën a def nag li ci gën a kontaan ba noppee daf ñoo yóbbu këram jox ñu ceeb. waxu leen ceeb demoon yow jaaru leen kër. ci kër jaayeen yaa ngi ñuy seetaan de ngoone. ah jaayeen ah? yaa ngi ñuy seetaan ah, waaye man man nabu man nabu ma leen ko ñoom coom man balaa may mën a liggéey. damay lekk su ma ko deful damay mer. waaw kii xam na ci dara. Ah. man su ma lekk ko lekk damay mer damay gaaw a énervé sama bopp metti sama température yi yéeg. bu xiifee dalay message loo takk émission xoolal laaj ko am na fu ñu voyagé woon dem laaj ko man dama mer ba xuloog ñoom moom naa lekk ba pare lu waaye wax ma dugg ca moo la dëgg nag waaw jóobu laa sant bëgg naa ceeb nag nga wuy xulil awee ah xëy toog café ak di naan café huit heures et demi que loolu café actu la. di naan café di ba pare nag sunu mbokk yi dañoo ñeme tegle dañu tegle teg doos nga kii boo àndut ak dara dalaa xoos. te am na yeneen doses yu ñëw tey. ak ah gis nga donc dafa dafa am lu moo àndal. comme yooyu ngeen daan def. yu baax yooyu. voilà gis naa kii loolu ngeen tàmm <laughs> gis naa seen premier ministre du Sénégal bi ma ñoo taxawoon ni côte à côte ma jàkkaarloo yoon distance a gaaw a sori. la lan mu wax la lan. yéen dem ngeen kër Henri dem ngeen kër Henri demuñu waaye ñu fa waaj eh, dem. dem ba Ndar dem leen kër Henri. tam nag xam nga nag. Eh, loolu la premier ministre te déjà liggéey bi studio bu mag bi ne foofu ak la fa nekk ci ay ngoone ngoone PM nga yow da yor ñaari ñaari coup benn bi ci ci ci ci ci Jumaaja la waaye benn bi ci PM la génne. Ah. Mm-hmm. PM nee na man xale bu baax laa. léegi nag ma yàq damaa sikk. <laughs> nee na da nga sikk mais dëgg la nga woon sikk. lu ñëpp wax nag dëgg la jot na ma soppi sama taxawaay nag <laughs> imaam yaa ngi wax <laughs> man maa ngi def li mu mën pourtant nag dañ ma yaa ngi jéem ah maa ngi xoolee sa xoolaat xam ne war nañ laa sant gërëm maa ngi jéem maa ngi jéem de yàlla <laughs> yàlla man yàlla leen yàlla jàppale amiin du du yomb nag du yomb de jërëjëf ajaratu Ngoné jërëjëf. <laughs> maa ngi nuyu Ami Aydara depuis Côte d'Ivoire. ay Aydara depuis Suisse. macha allah Ami waaw di nuyu suñu yaay bu baax a baax. ma Marème gis nga keroog mu andi ñu yóbbante bi nga xam moom moo jóge Màkka. macha allah macha allah indil ñu ay zamzam. Hmm? ay zamzam ay ah, tàndarma wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaajëfal bu baax a <laughs> ngi fii comme ñëw woon ci ajaratu Ngoné dégg nga baay. Euh, Sadi Diémé. Saadi Jéeme Saadi Jéeme ca Allemagne. waaw balaa Saadi. mu ngi nii. weddiwuñ ko. non ba ba non Sa Saadi Saadi may ma rek ma ma teg ma wax li nga wax. très bien. kaw Tom xaaral bii ñëw nga may soog a dugal vidéo waaw Ngoné moom Ngoné Ngoné Sadio moom il faut ñu invité ko fii quoi. Sa Sadio Sadio yaa ngay siiw nag. comment vas-tu bon j'espère que tu vas bien. plaisir, de vous suivre. Hein. là devant la télé. Je prends mon café, tout ça, puis je regarde mes emails, tout Je travaille un petit peu. Hein. Euh, je vais reprendre le boulot de l'après-midi. C'est un régal, hein. c'est un régal de vous regarder. C'est cette spontanéité, cette beauté, cette gaieté hein, mm qu'il faut tout simplement apprécier à justice. Euh, vous nourrissez le Sénégal actuellement pas. Mm-hmm. Hein. Euh, yow xam nga ñoo far ñoo bokkee même équipe. et xam nga la. waaye tegal sa loxo bi luy dëgg nii. aim the target. thanks so much bro. <laughs> <laughs> ah nag ne. Sadi. Saadi siiw nga nag ma nga ca diggu Allemagne. Ah, ah, di ko mag la macha allah nu kan nuyu bu baax. di ko ziar bu baax am na ñu ne. Euh, <laughs> papa Assane lan moo xew te mu teel a xëy si. ah loolu tam bi laaj na de. aywa ah, moo wax leen ci combat bi vidéo bi balaa ñu dem transition. s'il vous plaît wax leen ci combat bi ñi ñëwul. ak ak son nag. <laughs> lii rek lii rek régie voilà may leen ma sax ak ah, ah, ah, kan ko def mo xoss do wala mom neena mo xé wa nga do do dem adam bu ñëwé liggéey ci gooy dama du bari ak kan ala fa ak dof yi ak kan do wala mom yow kay ay jërëjëf ak kan ala fa ak dof yi ak kan ah Doudou bienvenue. merci tu es très emboutée. jërëjëf allah xam naa ne Nabou création Nabou la moom mati la. Euh, saa yu ñu génnee ci couleur yii rek nga xamante ne moom moo fa jaar euh, jërëjëf. <laughs> yàlla baax na. Doudou. naam maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi delloo ziar. nuyoon naa neexoon na ci yow wax dëgg ah, yàlla wax dëgg yàlla. tu es très emboutée macha allah. UVC Gaston Berger te waxoon naa émission bi yéen rek laa koy may. may leen ko ba mu jeex ñoom rek ñoo ko mérite ñoom rek ñoom rek laa ko laa koy may jërëjëf Ajaratu euh, Ngoné alors. clin d'œil à euh, mon frère là-bas ay UGB ah. d'accord non. bul déconné sama 5000 te bu 5000 yi matee dañuy laaj. t'es charmante dame quoi franchement waaw moom <laughs> Ngoné Ngoné Sali moom il faut ñu inviter ko fii quoi elle <laughs> est superbe elle est vraiment géniale c'est un ange quoi. Mm-hmm. voilà passe le bonjour. il faut il fallait loolu egg. waaw gën demi demi moitié moitié Aram Fall maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay fay. Euh, ayca jërëjëf jërëjëf euh, moom nu mu tuddati woon. Sadi Diémé Sadi Diémé monsieur Diémé ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu waa Allemagne bu baax a baax les Sénégalais de la diaspora ñu ngi leen nuyu bu baax vous avez déjà annoncé les couleurs Baye Sall na ñëw indaale bonne sur le plateau euh, alors euh, xam nga ne Café Actu ni lay tëddee la revue des titres la ñuy euh, dooree toftal ci cas sur cas daal di terminer ak actu commenté Pape Moussa Sow va nous rejoindre sur le plateau d'une minute à l'autre sans tarder